bi mu ñëwee fii il a beaucoup fait jël na ay groupement femme féminin financé leen Ablaye Diomboxo jël na lu tollook cent élèves inscrit leen ci semi Ablaye Diomboxo jël na Ablaye Diomboxo jël na ay étudiants wutal leen logement jëndal leen ay ab Ablaye Diomboxo jël na ay jeunes dugal leen université ñuy liggéey maintenant loolu lépp Ablaye Diomboxo def ko waaye ñu gis ni boobu ba léegi Ablaye Diomboxo gisul boppam ci parti bi Ablaye Diop Mboxo liggéey na ba sonn président yëgalu ko woowu ko faalewu ko maintenant ñun Mbàkke suñu yitte ñi jël décision daal ni Mbàkke suñu yitte dootu nangu ànd ak formation politique boo xam ni dañ lay utiliser te duñ la jox sa gëdd ànd ak formation politique boo xamante ne nii dañ lay suul te déewagoo ànd ak formation politique boo xam ni say effort say sacrifice yi ngay def yëgu ko gisu ko maintenant ñi ngi jëm ci ay élections législatives ñi gis ni date bi jàpp nañ ko le 31 juillet ñun Mbàkke suñu yitte même su ko leader bi nangoo parce que leader bi nekk na koo xam dafa yaru leader bi dafa respecter la discipline du parti leader bi Ablaye Diom Bokho nekk na nit koo xamante ne nii ci valeur ak principe bu parti bi ci lay dox waaye ñun Mbàkke suñu yetti on va lui la main dañuy weñ loxoom dootuñ nangu ab Diop Mbokho di jël ay moyens di ñëw Mbacke di à la base di lijjanti di def ay moyens ba pare bu élection yi jeexee ñi mu mel ni moussoir à jeter la ñu sànni ko. duñ ko nangoot Ablaye Diop Mbokho su ko nangoo ñun on n'acceptera pas. maintenant ñi ngi lancé un appel solennel di wax le président ni ko nañu recevoiral suñu leader ab Diop Mbokho na ko recevoir. na woo Abdoulaye Diop Mbokho boole ko ci li ñuy def ci parti bi. Mbacké Suñu Unité est là de cheminer avec formation politique qui n'accorde aucun crédit à son coordonnateur. Mbaki Sunité refuse catégoriquement et s'insurge contre le sort qui lui est injustement réservé. Mbaki Sunité est las d'être oublié. Mbaki Sunité refuse d'être enterré vivant. Même si le coordonnateur l'accepte pour son humilité et son attachement à la discipline de partie nous, au mouvement ne l'acceptons pas. Maintenant, si dans les prochains jours, rien n'est fait, dans le sens de corriger ce manque de respect notoire à l'endroit de Serigne Abdoulaye Diombo, coordonnateur du mouvement Bac Unité, nous serons dans l'obligation de prendre toutes nos responsabilités.